Euh, ñu ngi def loolu euh, loolu xëy na lan la vice la wala xam nga nit boo demee ci sa àddina ba amatoo espoir mën na la dugal ci lu nekk tamit loolu tamit lu jara lu jara am na yu bëri yoo xam ne dafay dugal jigéen ci pour mu def loo xam ne lii du cëram mm-hmm. kii ñàkk ko dugal mm-hmm. kii bëgg mel ni alima mii moo ko ci dugal mm-hmm. kii gis na ne su koy na am na kër gu rafet yor oto bu baax yor compte mu bugg faj-faj ko te mu ngi dem di dikk te xamul nan la amee xaalisam mu ñëw mu dugal ko ci du dëgg Dubaay am na fa jigéen ñoo xam ne ñu ngi yor seen kër di recevoir seen i moroomu jigéen bu ñu jógee Dakar seen kër la ñuy wàcce kër bu am juróomi néeg juróom benn néeg ñëpp ay jànq lanu bu guddi jotee ñëpp ay taxaw jonn dañuy liggéey ba fajar mhm. bëccëgee ñu yendoo nelaw bu ngoon ñu sañ sa dem noonu mu amee du Dubaay noonu la amee Sénégal gii mhm. yaa ngi may déglu mhm. noonu la amee Mali gii noonu la amee gàmb gii am na koo xam ne mu ngi si réew mii jomba def ñu koy gis bu demee Mali day làbbali am na koo xam ne ci réew mi jomba def ñu koy gis bu demee gàmbi gee beneen mbubb lay sol ndax lan la daa bëgg a am mm-hmm. daa bëgg a faj mm-hmm. waaye nag bu tàggoo sa yaay ni maa ngi dem daani doole mm-hmm. nga woon sa yaay yar ak teggin ne man damaa bëgg a daan doole sama yaay pour jàppale la mm-hmm. say waajur loolu rek la ñuy gëm mm-hmm. kon yow ndox mu sedd muy rey ay matt nga masàllaa bu ñu la bàyyee nga dem da ngay liggéey leneen bëggoo rek lu dul du dox sa ndey ak sa baay waaye baax na ci nag des fois sa yaay waat la ak sa baay laaj la wax la yaay kan wax la ne yow yaay kan ah fii nga juddoo de fii nga yaroo di woy sa maam man de maag sa baay bii de wax dëgg yàlla lu ñu ma sa am waaw lu ñu ma sa am de waaw lu ñu ma sa am dañ koo liggéey mosuñoo ñaan mosuñoo tàllal loxo mosuñoo soxla ñàkku jàmbur loolu di ko wax sa doom da ciy baax te man gis nga man du ma yor sama doom di ko bàyyi muy ànd ku ne mm-hmm. man Fatou Laobé sama doom a ngi may dégg bu àndeek nit man ni jàkk nit kooku xam ne kii dafa capable dootul ànd ak moom. Mhm. man jaral na ma lu ne. mooy dëgg man sama doom. baar jaral na la def short defanteeg moom. laay lay la laa crop laay sol. defanteeg moom sama doom du ànd ak man ku ma neexul sama doom. day faatu mais. Mhm. du ànd ak ku ma neexut. du ànd ak ku ma neexut. Mhm. parce que man noonu la ma sama yaay yare man damaa judd si kër lawbe. fekk sama maam ak sama yaay yëpp di jaay. Mm-hmm. sama baay di saalum saalum macha allah loolu laa xam. Mm-hmm. daan sama doole rek ku ma yéen a may ma ma jël nag mm-hmm. waaye nag mu am dama koy daani sama doole. kon nag nit ki niñ la yaree noonu lay demee. gis nga lii li muy yàgg yàgg yàgg yàgg yëpp. tey ki nga xam ne moo amee video bi war koo génni day yoot rek waaye dina excédé. moom petit petit ji ku dëkk ci dëkk bii te bokk ci jële sa pause ndax gis nga la mu teg dana koo génne man maa la ko wax <laughs> dana koo génne de petit petit nekkul na ku ci koo xam ni dañ cee bokk ah xaaral sa pause sa pause. jël nii jarul daw jarul dara. xarul benn yoon waaw puti puti xaru loolu du dara ci ñoom. dama ni dama ni gis nga fii jigéen ñi fii jigéen ñi am na jigéen ñoo xam ne li ñuy def. Hmm. billaay wallaay wa taala puti puti ja sax duñ ko def. <laughs> barke yonent bi Sénégal fii Dakar mi ngi toj. <laughs> dëgg oo ngi toj. man loolu moom ni boo gisee xale bu ndaw. Hmm. toll na nga war a seeg sa maamu tubaab joo xam ne moo ëpp sa maam <laughs> ëpp ko ay at téeméeri at téeméeri at ak fukk nga ànd moom mu rafet rafet ba mel ni maara day taal ngay xale bu ndaw di tiitaroo ko ci kii gi loo ci dugal lu alal waaw ah loolu ci dugal moo ci dugal keneen mm. li nga nekk li am Sénégal gi moo am Amérique li am Sénégal moo am Italie moo am France li mm. nga sa tarouge goog ngay wax sama jëkkër laa ànd <laughs> àndal ñu joué fa seen dañu lañ doon joué mm-hmm. logé 18e. xam nga li 18 ah, de ville mu ngi mel ni. rideau de ville mu ngi mel ni almadi gii rek. boo génnee guddi sax benn seconde rek nga gis góor gu la pis. waaw. waaw góor gu la pis. man pes naa fa te góoru africain ya ñoo fa ëpp. bu guddee jigéen du génn yaakaar na da ngay génne pour jaay te man maa ngi ànd ak sama jëkkër di dem. Mm-hmm, mm-hmm. billaay wallaay taala. waa ji topp ma rek booba xam nga ay tay baas ak yooyu laay. ah, ah eh, waaye ji topp ma rek sama jëkkër na ko yow bàyyil kii. Eh. yow lii mbaa jàmm la. moom sax daa baax am na ñoo xam ne ah, moom man ah, naan naan xam nga. <laughs> mu doog a a toog mais lépp am fépp. nit mooy am fulaam eh, ak faydaam ak personnalité ma dem ma demoon Dubaay tey dinaa si nap dinaa fotow. waaw dinaa def lu ma neex. ndax kenn xelam xalaatuma. Mhm. ca loola. sama ngor mayu ma ko mhm. ñàkkuma jom mhm. soxlawuma loolu mhm. ndax fii ma dëkk defuma ko duma ko def kenn feneen waaw loolu de mooy dëgg moo tax it fii ma toog maa ngi osé man bu puti puti génne it man je m'en dëgg la non non mais gëm-gëm boobu noonu il faut que nit yi am ko parce que tamit affaire dafay dañuy freiner nit yi. waaw parce que tey ku war a dem Dubaay doo dem Dubaay ku war a dem Dubaay na nga dem ah. Dubaay. dem ka Dubaay boobu loolu leen biyee léegi ma dem. ku war a dem ah. Dubaay ku nekk am nga la fa yóbbu. voilà mais du loolu sax am na ñoo xamante ne dañuy dem vacances ñii dañuy dem ak seen xarit ñii dem en famille ñii dem pour ay business. ñii dem pour business bi. alors ah, aussi ñu terroriser nit ñi quoi aussi non jaatu sa dafa dama jënd ñaari billets yow man yow Awa Cheikh. voilà billaay wallaay. doguma pour ma dem Dubaay dama doon dem Tumpa rek. yaa da ngay gis fii. ay fi mu ne nii fu dem.